ci lettre bi ñu ñu jox mu ne panneau publicitaire yooyu dafa bokk ci li nga xam mën indi trouble à l'ordre public waaye nena, na ndax mën nañ koo ci ay acte de vandalisme ma ne nak nag mooy tële amna ay acte de vandalisme maanaam njortees nañu ne dana am ñoo xam dana ñu ñëw pour yàq panneau yooyu ma kon mom ministre de l'intérieur la koy doyee matewu ko mom mu ne lolu mën indi musiba ci dëkk bi kon bu ngeen wul affiche yi ñun nañ ko dindi mané ñun jël nañu acte ci li joxe li lettre la lettre bi nak jot nañu ko suñu avocat ñu ngi taxaw nañu xol naka lenyuci ci wara jëfé tay nenyi. wa mom Sénégal sonn nañ tay mom Antoine diom mo waron taxawu ñi nekk ci mbënd mi